sàccal démb démb maa leen di bége démb dafa am beneen ardo bu ñu gis defet moo baax ci mbër wala ardo dafa xam fi mu war a toll ci làmb mu dem fa waaw comme niñ koy waxee rek dañ ne day defar mbër waaw mais day defar mbër bu am jom waaw mbër bu am jom defet baax na si moom am jom waaw bi ngay jógee fii arène nationale da ngaa bi nga demee toog xalaat lan nga jàppoon ni moom nga manqué bi nga ñëwee démb nga wane wat waaw dañ ne kuñ lu ñëpp kuñ tuf nga tooy li ñëpp wax mooy dëgg Ardo bàyyi lamb yi ngay foowee ñu xool si loolu liggéey si ak suñuy mbokk ndax combat ba mu ko jëlee ñëpp dañoo bañoon ñi ma gën a sës rek dañ ma bañoon dañoo bañoon wax nañ façon lay bu ne xamuñu ko nangam sangam ak yooy noonu ma ne ko man xam naa ko te làmb xam na ko waaw moo la ëpp nii ma ne ko man bi amul kenn mbër bu may tollool général no tollool nii nii nga ëpp ma doole amul man gëwuma loolu parce que xam naa li may daj bu baax a baax. nga bëree Saba bi arbitre sifflé nan ngeen bëree Ardo nan la ba daan ko Saba lan la doon tànte nga yëg ko. waaw Saba dafa dugg te yegsiwul dama ko bloqué bopp bi laa mën a bëree quoi ndax bopp mooy bëree dafa ñëw ma bloqué ko ins boobu jàpp na. man boo gisee sax ma may ko mu jàpp parce que moom dafa jàpp man ma doon wut fu ma jàpp parce que moo gën a wóor ci bëre léegi ba may wut fu ma jàpp moom tamit mu ngi mu ngi tante leneen te xam naa ne foofu tegal chaise rek fu ma sa def te sama loxo mi ngi si biti moo tax tegal chaise bi tiituma si quoi après ba mu tegalee chaise fekk ñorul parce que waroon na ma mën a gën a dugg ba pare soog kii ndax ins boobu bopp bi maa ngi ko téye di ko manoeuvrer ndax fi ma bëggoon yegg bu ma fa yegg woon mën naa mais yàlla dimbali nañu ba yegguñu foofu après mu tenté kii bi tegal sees bi ma ma tëb ko teg sama loxo buub ko mu daanu. démb unité 1 unité 2 unité 3 yëpp a neex ndax ASC de final Ardo daal ñaari ndam yi daje foofu. waaw lool ce n'est pas évident quoi parce que Jack sa mooy nekk président ECCO dafa sonn ci làmb ji. bëgguma ko woon laaj dara sax ndax xam naa li muy daj ci man xam naa. si li muy daj si ECHO ba mu nekkulee président waxuma nag bii passé mu doon président bi mu war see mu war see joxe lépp lu mu am laajuma ko dara mais dafa ñëw laaj lool boppam bloc dafa participation ne mënut bañ a tee mënut teew ndax day teew si final bi mais après mujj na sax teew ñu koy gërëm bu baax a baax non mujj na teew mujj na teew stade lu mu xat-xat ñëw na dafa ñëw na tombeek ñuy génn mu yóbbaale ñu ñibbi ma loolu di ko gërëm bu baax a baax jaag. ak ñëpp ñu si jàpp Cheikh Omar Mbaye waa kër Lal joor bi waa kër Nene taali yi ñoo sonn si kii bi sonn nañ si làmb ji torop Ardo daan na Saba fan la Ardo jëm. ñan ñooy ay adversaire am ci làmb. ay moor Kankang mii nii nii man moom day neex. Mor Kankang. ñun ñoo jëm fay deux ko fi kii ak euh, ki ma bàyyi si kaw te mu am léegi biir fils de dëgër musóor <laughs> bàyyiwuma. noonu la demee. bàyyiwuma ko fi muy ma sañoon daal ñu may ñu loxo ñëw bëri parce que daanu de escalier la daanu dem la daanuwul toog xaar waa di gërëm ñëpp suñu si jàpp waaw ku lim rek jum waaw am na koo xam ne day bañ sax ma lim ko mu ngi nii di romb xam nga bëggul sax ma koy lim waaw parce que dafa yëga di xaalis jox ma saa ba ma ñaanal ba pare ne ma sarax dafa metti am lii maa ko jàpp si sarax yi génneel sarax yi loolu yombul ko la koy defal ak ñëpp ñi si jàpp ñëpp daal ku lim rek juum ak sama grand Cheikh Niang ak sama grand Elage bu Dieng Elage bu Dieng. loolu dafa maa jaaxal Elage bëgg naa Ardo vraiment bëgg naa nga ñu toog nga ñëw bureau ba ñu def plateau parce que Elage bu Dieng mënul ngemb euh, lu mu tudd ki mu jël. Mbagnick la ngemb ñu. daan la mu ñëw jàppale waat. loolu parce que lépp loo gis maanaam dañ ne xare bu yaroo ma tàngal amaana yar ak déggin bi ma ko si koñ bi bokk muy bëreeg man. di dem àll ba di ñëw gars yi di ko gis teewul jàmm la fa ndax ñun parcelle yow fa nga dëkk xam nga ko ñun teranga lañ xam xamuñu violence quoi waaw loolu nag moo ko impressionné si ñun ba mu ne moom am na yéenay jàpp si ñu ibil ko ah waaw parce que nit nit rek la mën a doon ñun xamuñu làmb suñu grand seex ña ngi ñoo ñu gën a xam làmb ku ñu jàppaloo dañ koy jàpp ku ñu boo bàyyiloo dañ koy bàyyi parce que ñun làmb rek lañ am waaw ku ñu si ñu jël di ñëpp ñu si jàpp